temps ñu déglu ko ci loolu léegi fi ñu toll nii euh, ñi ngi jëm ci euh, ñi ngi jëm ci ay ay ëllëg yoo xam ni xamuñu parce qu'il faut ma dellu siwaat ci tuuti ndax loolu nekkul baare yëgoo ci diggante président de la république ak son premier ministre ci déclaration de politique générale bi parce que daf ni ko ñaan naa ko mu dem def ko ci diggante bi ñu ngi wax dissolution tas assemblée nationale hmm. ba nga xam ni déclaration de politique générale bi du am assemblée nationale loolu nan lañ ko mën a expliquer te askan wi aussi di xaar loolu conseil euh, constitution dénk ko premier ministre mu war ko def président de la république moom au lieu que mu imposer ko ko mu ñaan ko ko ba mu nangul ko ko ci li ma jort mais enfin est-ce que du mujj ci nax nit ñi quand même. non mënut a demee noonu parce que li kay tontu booy yow da nga jàpp ne assemblée bii ñu am bu fekkoon ne suñu dispositif constitutionnel prévoir wuñ ci déclaration de politique générale président Diomaye day bàyyi assemblée bii nii di woy mënul nekk amatul légitimité. amatul ah, quoi mais amatul légitimité. pourquoi. assemblée nationale boo xam ne yaa voté loi bi nga xam ne moo reporté élection. <laughs> non inédit ci histoire du Sénégal amul légitimité. <laughs> alors léegi assemblée boobu bi mu ko defee constitution bi lan la def. constitution bi la def conseil constitutionnel. conseil constitutionnel moom laa bëgg wax quand même. conseil constitutionnel lan la def devant l'histoire. waay mais loolu bu fekkente ni am na. mais loolu moo lay wan ni la dialogue bu normal am na. kon ku ci ne am nga sa légalité. maanaam tey nit bu sàccee ñu tëj ko kaso yoon def na liggéeyam parce que yoon moo la recadré comme ni conseil constitutionnel def est que dafa tax sàcc normal wala ñi xam ne diw sàcc la kenn du ko dénkati alal ñii def loolu noonu forfaiture boobu noonu non mais loolu mënuñ ko fàtte. c'est parce que conseil constitutionnel rectifié na ko. d'accord ah non non léegi kon tas ko ci la ci ngeen ci ngeen jëm. mais c'est une demande non bu bul populaire te bul bàkkaar. c'est une demande populaire parce que loolu. waaw bu ñu ko tasee dinañ ci xam dara loolu référendum moo la ko mën a wax. bu ñu ko tasee c'est une demande populaire loolu référendum kese moo la ko mën a wax. bis bu ñu ko tasee. waaw dem ci élection askanu Sénégal dinañ xam. ba xam ñii fi nekk am majorité nañuy re nañuy reconduire wala ñi leen fi jëlee nañuy reconduire. ok est-ce que jàpp ngeen ni bu ñu ko tasee ba dem ci législative Pastef am nañu kàttanu am majorité ci assemblée nationale ci élection yooyu. waxuma majorité de xam nga ñett majorité yi dañoo bëri. waaw dafa am majorité booy wax nag wax ko fi nga ko teg. waaw waaw dinaa la ko indil ba mu leer nañ. majorité simple dafa am ñun cherché wuñ loolu. parce que amul njëriñ boo bëggee soppi constitution par exemple munoo am majorité simple te yaa ngi wax dissolution institution yi con majorité qualifiée majorité qualifiée mooy nga mën a def lépp loo bëgg a def mooy trois cinquième des députés mooy quatre vingt dix neuf députés loolu du dara ci Pastef majorité écrasante nañu bëgg mais donte ñëwuñ pour écraser kenn. mooy majorité boo xam ne nag président de la république bii ngeen wan ma muy Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre am Ousmane Sonko ak gouvernement bi dinañ am les moyens de leur action parce que nag budget assemblée nañ koy voté wee parce que nag loi yi assemblée nañ koy voté parce que nag assemblée au-delà de ñu mën a doxal dafa war a jouer rôle am dans le contrôle de l'action du gouvernement. d'accord dafa war a jouer rôle am dans l'évaluation des politiques publiques. alors te loolu bi koy maye baal ma. Mhm. assemblée de qualité lay doon. Mhm. assemblée bi koy maye assemblée composée de patriotes lay doon. <laughs> assemblée bi koy maye assemblée la boo xam ne ñi ñu fa teg du ñu taxaw ci kanamu plénière sénégalais di leen déglu ñi taxaw ci kanamu pupitre assemblée de day man de bu ñu ma indilee projet de loi duma ko xool. Mhm. assemblée boobu def fi war a jógee pour ñu am une législature wala boog un pouvoir législatif. de qualité. waaw d' accord ci assemblée boobu la ñu gis ñi ànd ak Pastef aussi di fa taxaw ci table yi di xëcc ay micro li di kàjji ay ay jigéen. non foofu lañ ko gisee ah. da nga ma jox exemple def lan. di di lan nga mujjee wax taxaw si table lan nga si teg. non li ma ci teg. dégg nga ñi ànd ñi ànd non non non non rectifier foog nga rectifier. Ah, d'accord mais mais ñu ànd ci élection yi de. non li am solo dañu ànd ci yi de. yoon defoon na ci liggéeyam. ok d'accord amul kenn ku ko rafetlu. ok waaw donte nag li ko fait générateur yi ko indi. Mhm. loolu dañ ci war a taxaw. voilà d'accord léegi Ngagne bul fàtte ni président Ousmane Sonko dafa taxaw nii réew doo ko jël jox ko parti bi jël assemblée nationale jox ko ko daf ko wax wala loolu déggoo ko. non mais loolu yow yow wax jooju nga bëgg a jël opposé ko li ñu wax nii ça n'a rien à li ñu wax mooy. ngañ maanaam démocratie bañ a nekk bañ a nekk politique politicien yi ngay def nii non vraiment man bëgguma nga egg foofu quoi xam nga non bëgguma loolu quoi ñu naan dafa aay rek. nga bëgg lu ne nga bëgg ko layal bul dugg ci loolu. non maanaam yow. gëm nga ne nga ne président Ousmane Sonko mën na gëm. waaw dans le fondement de sa pensée ne moom bu dafay wax lu mu gëmul kon waxul loolu il faut il faut nag nga nga nga bañ a li muy wax parce jubluwoo ci loolu xam naa mooy li mu wax dafa simple daf ne bi ñuy laaj daf ne réew. parce que psychologie collective de beaucoup campagne non boobu état bi ñii ñoo ko yor ñu ne leen bu ñu leen jox assemblée nationale. nañ leen ko. c'est aussi simple. c'est par rapport ak ñi yor exécutif bi ñal la mais loolu tekkiwul ne bu ma yoree exécutif man damay naan du ma ut léegi léegi yow loolu Ousmane Sonko mënu ko sax def Ousmane Sonko maanaam mënul sax jàkkaarloo waa Pastef ne leen comme ñun ñoo yor majorité bi léegi nañu fexe te su bu ko defee sax loolu du am xamalu tax. parce que bu ñu demee sénégalais yi si boppam ñooy naan ñun liste bii Pastef bokk ak ay alliés ñun liste bi nañuy votel de. ok parce que loolu Sénégalais yi yóbbu mais boo boobaa amul sax moyens yi pour def ko moom. non non eh, c'est-à-dire. <laughs> amul moyens yi. waaw d'accord ok c'est impossible. d'accord xam nga c'est bien parce que parce que c'est bien parce que parce que yéen dafa mel ni VAR defu leen benn problème. moo tax ngay ngay wax et puis nekk ci à mel ni VAR defu leen benn problème quoi parce que loolu ay waxam la yoo xam ne. VAR mënul def problème ku ñu mënul VAR. ok <laughs> alors c'est simple. Euh, mais élection yooyu nga jàpp ni da ngeen koy gagner ak une euh, majorité écrasante. mais ak ban coalition lay doon parce que gëw mu ngeen am coalition bu toll ni bi ngeen amoon ci législature bu mujj bi. non mais présidentielle lan nañ am présidentielle bi ñu bi ñu bi ñu def lu musta am ci Sénégal mooy jógee ci opposition gagné élection premier tour te am am ñu taxawoon ne dañuy xaar deuxième tour ndeysaan yërëm naa leen mais loolu musul am Sénégal te yaa ngi wax te coalition bi ñu amee ci législative am na ci ñaari partie yu mag kenn ki demal boppam te mu am ci droit. keneen ki aussi demal boppam donte yoon yi mu jaaroon coalition bi ñu bokk aménagé wu koon nañ ne yoon bi nga waroon jaare du dëgg mais am na ci droit merci donc malgré tout malgré tout ñu nag ñeneen ñi ñu ànd ak ci gis-gis sénégalais yi nañu yéen dès le premier tour soxlawuñu di leen méngale keneen deuxième tour le choix est clair sénégalais yi xam nañ fi ñu jëm d'accord loolu incha allah mooy amaat ci élection législative mhm. loolu mooy am incha allah ci ay élection locale pour nag réew mi parce que man dama dëkk Grand Yoff nga baal ma foofu sama sama sama sama dëkk xar kanam bi mu am ci wàllum propriété ci wàllum cadre de vie te mu nekk compétence bu ñu transférer collectivité territoriale bi wax dëgg yàlla xar kanam bu jéggi dayoolo ci wàllum gestion de l'état civil xar kanam bu bu boo xamante ne rafet rafetlu ma ko la te sama doom ma koy utali kayit ci mairie mais loolu yëpp. mënu ma ko am na loo xam ne état central mënu ci def dara parce que mairie bi dafa am ay prérogatives compétence bu ñu ko jox la. Ah, mu am ay ressources am administration te teewut vision amu.